ci première Sénégal neex na. waaw neex na trop kay nañ dem ci premier point bi ah no face nañ déglu li ko ndaw si wax lii ko li mu ko wax nii nag ay accusation yu doy waar ngi ci biir ay saaga ngi ci biir ay xasa ngi ci biir lépp ngi ci biir yaa tout ci biir vidéo bi dem leen nañ ko xool euh, su jàppandee ci régie bi ñu yër ko dégloo ndoo ko ak yéen ñu dellusiwaat. kat mooy yow wallahi mbab kaa mbab aan kaa vrai mbab. cas vrai mbaba imbécile nga dem génne soobu ñëpp ndayam boobu naan da di duul di dajale di di bëgg a sensibilité nit ñi tu vrai manipulateur yow wallahi du nitu dara yow yàlla na la àq mi yaa dal yàlla na la àq mi yaa dal yàlla na la yàlla àtte mi tu es tellement un vaurien tu tu en fait tu vaux absolument rien yow doo nit yow wallahi loo fees doo nit yow doo nitu rien di tout doo nitu dara doo nitu dara dara dara lenn de naa la xamal gis nga sénégalais yi ci kaw dafa ñu soo yaakaar da ngay génne sa clip bu imbécile bi naa naan da ngay jaay di di di bëgg a jaar ci euh, sensibilité sénégalais yi wallahi yaa ngi nax sa bopp. yaa ngi nax sa yaa ngi nax sa bopp instant bi Sénégalais yi ci boppu ñoo la gëmatul va te faire foutre va te faire enculer va te faire baiser imbécile góor jigéen xaramata njaay bi nga doon yow instant bi lenn rek moo dese nga dem adhéré ci eh, mouvement LGBT yi ndax moom nga góor jigéen xaramata njaay bi nga doon imbécile jàpp doomu jaambur bi di ko dóor di ko toroxal bu bëccëg nga ñëw fii di jaay nekk un vrai con un manipulateur di dugli dajale di yow kattan sa ndey fële tàngalee sama xol bi yàlla na. mer na de dégg nga ko. waaw Ousmane. kay fi mu nekk nii kay euh, franchement je suis je suis parce que lii am nii nekk na loo xamante ni lu yéeme la mais nag euh, man bettuma ah. ah. lii nii bettuma de parce que euh, la guerre vient de commencer. xam nga tax la guerre vient de commencer. Ah. Euh, Miami mi ngi commencé di def ay ay confirmation mi ngi confirmé donc actuellement ñii muy wax nii nii nii moom bu amee xel dëgg dëgg dëgg déglu voix bi bu baax dina xamante ni kii def lii xam na ko parce que nit ku la xam rek mooy mooy waxee nii ci yow di ko wax di ko saaga bi ko accuser ay vauriens c'est la guerre comme à la guerre actuellement nii noonu la demee li mu wax nag ni day wut xaalis képp koo xamante ni xam nga ndaw si li mu wax xam nga ndaw si kan la. nga wax ko ko mu jox la cinq cent mille francs du ko gaaw a gis ndaxte ñu bëri tey jii dañuy sëgg noppi parce que instant bii nii moom dañ ko bëgg déstabiliser dañ ko bëgg déstabiliser ndax digganteem ak kële jeex na kële mi ngi jël yoonam moom mi ngi jël yoonam mais am na ñoo xamante ni ñu ngi ci diggante bi bëgguñu affaire bi jeex xaw ma nag comprendre nga li ma la ah, am na ñoo xamante ni bëgguñu affaire bi jeex te neexul ba neexul nag ndaw si instant bii nii dafa saxi laab Mhm. dafa saxi laaf. Mhm. laaf yi dafa manqué woon dunk dunk yi saxaat na fi mu nekk nii mi ngi naaw. mi ngi nekk ci yoonam mi ngi dem. léegi nag ay nitam ñooy jóg nag di sànni ay trac di ko jëmale ci kee pour déstabiliser ko moom instant bi nii temb man su ma ko doon conseil conseillé day nekk góor nekk góor bi mooy lan na bàyyi kii di wax. laisse les parler gis nga bu ñu lay étiqueté dara te lool ñu lay étiqueté newul ci yow yow avec conscience xam nga ne li ñu lay étiqueté newul ci yow jarul di wax. Hmm. ay ku ko gis ma jox la 500000 rek ku xam ku jigéen kii bu ma ko waxee ma jox dangay ngay sonal sa bopp da ngay sonal sa bopp mais doo ko gaaw a gis même boo ko gisoon ni lan ko koy def boo ko gisoon loo ko def da ngay reyanteeg moom wala nga yóbbu ko porté ko plainte wala ngeen di dem di yéeg jugement di yéeg te loolu benn instant baaxul ci xale yi xale yi nga xamante ni ñoom ñaar seen diggante def ci am ba pare xale yi liy baaxul ci ñoom man su ma ko doon conseil na nekk gentleman am idée de dépassement dépasser ñii nga xamante ni ñooy wax parce que góor du daagasante ak jigéen xam nga comprendre nga fi waxee. góor bu bëggee am fulla ñu naw ko du dàgg sant ak jigéen ndax jigéen ñi ak góor xalaat yi ak science yi ni ñuy defee c'est pas la même chose. waa niveau yi bokkul góor day góor day góore. góor buy topp ay waxu jigéen toujours da ngay am problème sa àdduna ndaxte ñoom ñu bëree ngi dem fii gaañ fi jigéen wala ñu si fekk jigéen def ko loo xamante ni ëllëg dañuy rëgg parce que jigéen moo mën a provoqué. lii dañ koy jéem a provoqué rek moom mi ngi ci domaine mi ngi liggéey mi ngi am li muy am na continuer liggéey liggéeyam te temps bi dina juger gis nga le temps va nous donner raison Mia mi ngi ci yoon mi ngi dem moom sax bu mu génn di wax si lii man dama koy teel alerte bu mu génn naan xaw ma kii kan la xaw ma kii wax ci moom bu mu ci yoonam nekk na continuer def yoonam ku góor kii na continuer dem def yoonam mais lii ndaw si di wax nii loolu ngeen dégg mu naan teint yëpp ngeen baal ñu téléspectateurs yi teint bu ngeen dégg rek saaga la teint bu ngeen dégg rek sunu technicien bi def ko rek ah, saaga la am na bu ñu rëcc sax ñu ngi ciy jégalu bu baax hmm. baax parce que euh, léegi Sénégal li fi garaaw mooy ñun émission yi ñuy def nii sax da ngay toog ba émission bi jeex nga demaat ci commentaire yi ñu ñu lay saaga di lay yàq lu ne léegi Sénégal dañuy conjuguer le verbe saaga au présent de l'indicatif je saaga ti saaga il saaga nu saaga woo ilu et saaga moo tax réew mi fii boo fi nekkee da ngay jël sa ginnaaw yii nga bind ci je m'en wax leen lu leen neex mais man damay dund li may dund moom góor la ñu ngi koy saaga na continuer laay fam te mu bàyyi ndaw si di ko saaga bu saagee ba sonn moom faalewu ko du amati problème mais gis nga xuloo boo déggee ñu naan Bilia xuloo am na ñaari nit ko séq su ma nee la yaa soof nga ne man la sa kanam gu ñaaw gi nga ma këj man la sa gilet bu cëq bi nga ne këj man la yow looy nduróog nii sa veer yu bon yi nga ne bu yàggee ma noppi mm-hmm. mais bu ma looy nduróog nii sa ma sa yoon si da may maye pour ma wax mm-hmm. xuloo kii day xul kii di xul moo tax ñu naan xuloo xuloo ñaari xuloo ay ñaari nit yu xul kii kii di xul kii di xul mooy war ñu naan ñoom kat ñu ngi xuloo léegi nag bu kenn dee wax kenn waxul foofu xul amatu fa kenn ki day wax rek bu yàggee da ngay ñàkk jom je lui conseille mon frère xaw ma yaa ngi France xaw ma yaa ngi Amérique yaa ngi Sénégal yaa ngi foo mënti ne laisse les parler ay jigéen lañ miyaa yowit les parle jigéen nga yaa ngi sa yoon mais ñii ay ay xeetu seytaane la yoo xamante ni dañu bëgg dugg seen diggante pour yàq ko diggante bi jeex na miyaa war ngaa mën a amaat beneen jëkkër yow it war ngaa mën a amaat beneen jabar bëgg nag dafa metti te ku góor ki boo déggee woyam ba mu way ba ñuy soog a tàggoo bilyaa nga xamante ne waa ji bëgg na lool ndaxte moom mi ngi naan ko xale yi dinañ wéet dellu sil sa kër ga yaa ngi fàttaliku suñu doom ji ñu yóbbu woon op kii ay armeele ba suul ko fa xam nga yooyu yëpp mi ngi jéem a dox ci kaw Mia mais Mia pare na Mia dafa mel ni prisonnier bu ñu jàppoon ñu ne dañ lay tëj cinquante ans toog ba mu yàgg rek ñu ubbi buntu ba la téye libre Mia fi mu nekk nii dafa firi de day dox doxam. ma ngay lëmbal rek nag temps ah? ma ne ma ngay lëmbal rek. mais day gën a lëmbal. parce que daa firi. Hmm? daa firi xam nga ku ñu libéré. Hmm. gis nga picc yooyu gars yi di jaay def nga si saako yi bu ñu ah. génnee benn picc ba ah, sànni ko fu ne lay naaw di dem. bilia kii Mia fa la toll actuellement. ma ngay lëmbal rek dafay lëmbal. te lu gën a raw lëmbal dina ko def <laughs> dafa ragal waa Jamra rek de. jamra lay sóoraale. mais bu nu woon jamra. lëmbal bee nag bu ko yàggee di def léegi jamra ne ko. waaye di nga gis miyaa lëmbal ba waŋeetu <laughs> mais dafa lëmb dafa ragal waa jamra rek donc yàlla nañu yàlla dool dolli sutura te Sénégal ñu moytu yii nag di wax di saaga saaga moom baaxul nit boo ko saagee rek dugg nga ci sensibilité am. Hmm, c'est important euh, ma rectifier sànq j'ai dit que jëkkëru biisu euh, jëkkëru biisu Ndiaye ba woon. moo takkaat ab jabar boo xam ne euh, dinañ leen noon image yi après da ngeen naa leen noon image yi wax leen turu ki mu takk euh, donc ex Bijou la euh, Bilia ban jàngat ngay def ci non face ojo bii ñu ko yónnee saaga xas traité de nangam borom ñaari tur yi lépp ngi ci biir ki ko def nag certainement moom bëgg na ko xam mais ñun moom xamuñu kan la waaye xëy na Pape Ousmane nee na ab jege ñaaleem la moom li mu def mooy mooy manqué ba pare ndax yaakaar naa ñàkk matam amul maturité bu nekk ci moom moo tax mu génnee audio bi ne yaakaar naa ne buñ la envoyé audio saaga la ci yàq la ci lu mel ni ketembe war nga koo mën a mën a muñ ndax moom mooy artiste moo fi sëy ku siiw ñoom ñaar ñu boole doon def benn duo boo xamante ne ñoo fi tuddee seen bopp maabo bañ amee problème problème bi ñu teg ko ci réseau sociaux yi ba ñëpp yokk ko divorce am ku nekk dem sa côté kii way génne kii way génnee kon moom moo waroon toog ci côté mais noo fees dafa dafa dafa maanaam li muy tontu dafa bari torop te ku min say tontu yàpp la. li muy tontu moo bari newuñu moo tooñ mi yaa wala mi yaa na gis nga sëy dafa nekk loo xamante ni lu lëndam la la nekk ca biir ñoom ñaar rek ñoo ko xam ku nekk la nga dund yaa ko xam ku sonaloon sa moroom yaa ko xam ñun mënuñoo wax ni lii moo xewoon ca sëy ba na fekkewuñu sëy ba. Mm-hmm. takk lañ ci dégg divorce lañ ci déggaat. kon kenn mënu cee am benn certitude ni Mia li muy wax dëgg laa 100 pour cent kenn mënu ci am certitude ni non fi muy xëccee ci booram tamit 100 pour cent moom moo am dëgg mais li l'essentiel mooy euh, Mia dem na ci côté am mi ngi topp carrière kon non fees moom tamit na topp carrière am bu dul dara dafa am ñoo xamante ni ñoo ngi fi way way yoo xamante non fees moo ko bind non fees la boo xam artiste bu complet la tey at yooyu mu am yëpp war na koo mën a jëfandikoo mu nekk ci leneen loolu laa gën a jàpp tey war na dépassé sax di génnee naan Euh, ku ma gisal ku jigéen kii dinaa la fay cinq 500000 francs kan moo koy gisal xale bu jigéen bi wala tey exemple bu ko gisee lan la mënal xale bu jigéen bi xëy na saaga yi mu saaga war koo saaga mën na ko topp ci yoon mais saaga fan la takk fi ñaata nit ñooy toog ñu leen di saaga ay ndey te mujjut fenn président Macky Sall mi amul lu mu déggul. mais taxé na ko góor jigéen quand même. Ah, président dinaa ñëw ci góor jigéen président Macky Sall mi fi toogoon amul lu mu déggul dem nañ ba mujj gi boo ñaan sax nga naan yàlla mu am doom bu nekk politicien ndax chaque jour dañuy saaga yaayam saaga takkul fenn. nit ki génnee kàddu gi di saaga kooku moo njëkk ñàkk respecté yaayam moom mi génne saaga bi di saaga. Mm. moom moom moom dafa waroon a reetaan te xam ni comme nit ñoo ngi koy saaga kon war na bàyyi ni am na ñu koy bàyyi xel. Mm-hmm. lii ku dem sax ku ko jege koo xam da koo bëgg a perturber rek moo ko tax a jug. ku dem kii nii xamul dara ci miyaa ku dem kii jegewul miyaa miyaa mi ci leneen mais tey jii nii bu defee lii dañ naan. yeneen sénégalais yi nga xamante ne dañoo mel ni genre bilia toog naan kii de mi yaa ko pour mu mën a xas noo fees fekk du loolu ku dem sax ki toog a no fees mën na def lu mel nii. tey jii nii am na audio yu bëri yoo xamante ne dañoo fuité génn kan moo koy def ki toog sa wet. koo xam ne sa sa njege ñaale la mais tey jii nii no fees buñ ko gis nga alin ba dara Sénégal ñett xas yi lañ lañ am. dëmm nga càgga nga góor jigéen nga fii ku nekk dégg nga kàddu yooyu boo dee jigéen dégg nga ñu mës nañ la wax càgga nga. ak koo mënti doon mën nga mës nga dégg ñu ne dëmm nga bu ñu lay xas xas dañ la naan bañ na ko ba dañ naan xuloo mbalit la dañuy jéem a jël euh, mbalit mi rek jëm la koo këpp hmm. mais tey jii nii góor yi bëri dañuy dégg ñu leen di xas ne leen góor jigéen lañ te musuñu leen bettee ni musuñu leen bett ak ñuy sëy góor hmm. fi ñaata nit da ngay gis jëkkër ak jabar yu xuloo sax ku jigéen ki xas ko ni ko góor jigéen nga hmm. buñ paree juboowaat ànd xëy na da di kàddu goo xam ne rafetul kenn ko teg ci kaw góor ndax góor yàlla dëgg du bëgg ñu lay tuddee góor jigéen nga mais góor jigéen ñu koy xaste dañ koo xamoon baat la boo xamante ne yaa ngi koy teg ci kaw nit boo amul ay preuve bàkkaar hmm. dañuy gis góor goo xamante ni sa dafa yaroo ci ay jigéen yoro geste geste jigéen ñu koy wax góor jigéen la fekk musul sa sa yëg ji góor bàkkaar boobu la moo ko gën a rëy pour wax nit ki góor jigéen nga rek lañ la cee wax ne la da nga koo war a fekkee rek ña ko war a fekkee ñeent ña rek yow boo ko amul waroo jiñ nit ki góor jigéen nga asamaan nag euh, yow xamoo nit ki xamaanoo nit ki ci ay kàddu miyaa rek nga dégg ne dóor na ma damaa fecceeku léegi maa sama yoon bari ngay xas nit ki naan góor jigéen la. Mm-hmm. man waaye ñetti xas yi war ta nit gis na Alioune Badara ki lay bàyyi xel rek ak di la topp rek moo lay xas gis na am na ñoo xamante ne dañ lay yéene jàmm fa nga toog dañ lay ñaanal doo dégg sa ñu wax la kàddu yu ñaaw. yaakaar naa ne nag yonent bi salallaahu alayhi wa sallam moo ñu gën fuuf moo tax ñu bind ñu te baat bu ne dégg na ko ci ginnaawam amoon na ay noon kon tey jii ni moom mënul wax ba noo fees mënul am ñoo xamante ne dañ koo bañ ñu ko fi gën a fi nekk te dañ ko dañ dañoo am ay noonu kon dafa war a jàll ci lii damaa yaakaaroon nag étape bi war na ko dépassé mais no face Facebook sax boo ca demee yaa ngi cee fekk bindim no face no face day xaar bi yaa gisee génn mu génnee moom tamit bu yàggee tamit dañ naan carrément moom doyalut Ah, xelam xelam nag xelaman ci ndaw si ba tey mais ak lu mu mënti doon nit da ngay am benn maturité boo xam Pa Ousmane ku jigéen ki dem na amoon fullaak fayda dem ñaata jigéen ñoo nekk ci àdduna bi mais ak lu mu mënti eh, doon gis nga Pa Ousmane waaw Pa Ousmane Pa Ousmane Pa Ousmane jigéen bu rafet la bu baax la kenn waxu ko bëgg nga ku mel ni miyaa di fanaan sa ma ne kenn waxul ne moolul de xoolal forme mi yaa. kenn waxul ne moo. xoolal dentition mi yaa. waaw dama ne xoolal kanamu mi yaa. waaw yow nga ko xoolal démarche mi yaa. yow xool nga ko xoolal taaru mi yaa. yow xool nga ko xoolal daggu mi yaa. yow xool ko. xam ah, yow lan la intéressé yow yow yow la intéressé dentition yaak yooyu. tout le monde l'aime. képp kuy góor ku nabul mi yaa rek da nga ko làq mais mi yaa elle est ah. jigéen la. Mhm. moo tax waa ji am problème. Mhm. am ah, na ñu waxante dëgg. waaye mi yaa ñu ko fi dàkka ngi fi. dem nga wàcc sa ndaw si woo la de. Pape Ousmane. mi yaa Ah. bu dee taar nga wax ci moom. nga gis si moom ñu ko fi dàkkang fii jigéen booy tàmm ci moom bul xool taar ba xoola jikko ja nekk ci moom. ba nga fa taar si la bokk. waa taar si la bokk ndax mu mën la doon seetaan waaye déglu bu taaru da mm. nga yeewu fajar janoo kanam gu ñaaw loolu day décourager góor. Mm. góor booy takk jabar takkal jikko. Mm. jikko mooy base. mais taar da cee am solo gis nga boo takkee jigéen ju ñaaw bu ngeen amee ay doom yow yaa leen di indil àq ndax kenn du leen seet si mais Pa Ousmane Biria nañu waxante dëgg. ma ni ku ñaaw kooku ku ñaaw kooku tàggul la xoolal kii. Pa Ousmane xoolal kii xoolal sourire bi. kooku bi bi muy ñaaw tàggul la xoolal façon xoolal façon pompon yi. xoolal sourire bi. xoolal bë yi pompon yi mooy li mooy pompon. <laughs> ah xoolal xoolal xale bii ni mu taaroo macha allah. tegu ci temps nekk xale bu ndaw. adduna bi yëpp bëgg ko. waaye yow Biria jigéen nga nag mais ñun ñëpp xam nañ ni Miami góor bu nekk ah, ah xoolaatal ma lii xoolal ma dagg bi comme tàndarma waay waay macha allah yàlla na ko yàlla lafal cat kii yàlla na gudd fan am lu am lu ne. Mm. Mia tu es très belle. Mia tu es góor guy dox bu la gisee xelam day na ci yow ndax da rafet da ngaa taaru da ngaa jongoma loolu rek lañuy ñuy wër takk fi jigéen bu ñaaw fii ngay jur ay doomi ñaaw kenn du leen seet si. ñu màgg mere seen bàyyi. waaw nañ waxante dëgg jigéen boo koy takk jikko ju rafet am na ci solo jikko ju rafet mais doo dem xool ku ñaaw mm. koo xamante ni kenn xoolu ko nga takk ko am leen doom léegi mm. doom yooyu yow yaa dañuy màgg ñaaw mere la Ousmane Pa Ousmane ah, nit ku nekk bu doon bañ leen di bañ leen di sàkk dañuy tàggu tàggu yàlla kon ñoom ñëppay rafet Pa Ousmane fi kenn tolloowut ñaaw googu nga wax am na jigéen yoo xamante ni ñaaw nañ ñaaw goo xamante ni waaye nag ñooy doon say seytaane ji jëkkër ñoo doon jigéen ju gën ci ñoom ñooy jur doom yi barkeel ñooy jur doom yoo xamante ni ñoo fi nekk di fañ buumu gàcce yi ah, ñaaw ci jikko la rek ñaaw ci jikko la man mënumaa wax ni yow jëmm ju rafet moo tax ngay tàmmu jigéen ko yow ci erreur bu mag déedéet sa jinjeer bi ngay naan sa jinjeer bi ngay naan mu lay gën a tàngaloo ngay laajte ndax kilim baa ngi tàkk wala tàkkul war nga koo bën a gën a naan xamoon naa ni moom balaa ngay am jàmm rek wax sama jinjeer bi waroon nga a mën a naan sama jinjeer bi moom naan ay jigéen ñaaw fii ku doon ku ne yaay sàkk sa bii nii may naan tant fii bu doon ku ne yaay ah. sàkk sa bopp soo wax ci jinjeer bi damay xàcc yow Paa Ousmane sa bopp yaay dàq ci àdduna bi mais ni nga nit ku nekk yàlla suñu borom mooy xool la ka neex ca jaamam. yow da nga ñaaw yow yow da nga ñaaw mais ak mënti doon man dama ñaaw. Ah? dama ñaaw yow ñaatoon nga may toll fii naa ma noo ma gisee. <laughs> waaye satisfaire naa ni ma noo ma gisee Paa Ousmane. ma daal di ma léegi léegi ci mujj. waaye dugg nga fii ma Paa Ousmane noo ma gisee ak sama gilet bi man la yaa ngi mel ni tàngal mant ah. waxuma ko léegi léegi léegi. man maa la sama waaw nga nga toog fii léegi léegi ni mënoo ma gisee la jàpp waaw yow yow loolu ngay wax jee la jàpp sànq ba léegi heure boo toogee bu ñu taalul clim bi yaa ngi génne sa papier boobu commencé def ni sa kanam hmm. pour lan la man bañ pourquoi ngay def ni maa ngi yoruma ah waaw yow may jàmm gisee bu leen ne ci télé yi di jéem a dóor gaa yi yaa ngi déliré gaa yi leen di seetaan nga leen di dóor ci télé yi di jéem a naan jigéen ay jikko la jikko la yaa ngi déliré mais jigéen dañ see baax la jigéen ju rafet dafa baax hmm. góor buy takk takkal jigéen ci jikko hmm. waaye taarit da cee am solo ndax taar mooy tax xëy ba neex taar mooy tax booy yewoo di xëy sa xëy neex taar mooy tax booy xool sa jabar sa xol di bég loolu dafa am Aline Badara ngi nii soxna su rafet bërkaat dem ba da ko estati lan la ko doon bindal kii mooy premier kii mooy deuxième mm. kii mooy troisième kii mooy quatrième defoo ko waaw loolu laa def madame mel ni àjjana loolu boo ko xoolee da ngay kontaan xam ni kii mi ngi toppatoo jabaram boo gisee jabar ji jabar jaa ngi mel ni macha allah rond-point yoo <laughs> parce que toppatoo na ko jigéen dañ koy toppatoo muy rafet bu doon sa sago boo xoolee sa jabar benn jabar du ko dàq waaye jabar joo xamante ni day mel ni euh, till day mel ni lu ma xamul loolu moom wax dëgg yàlla koo wu ma ko benn góor kuy takk nag takkal jikko mooy lépp jikko dafa am solo mm. waaye taar mooy xorom ba <laughs> taal mooy xorom ba jigéen boo koy takk da ngay takk jigéen bu neex a xool sax sa ay xarit buñ ñëwee buñ génnee buñ la présenté bu jaagar jaagaree ñu xamante ne yow kat macha allah ah, léegi léegi macha allah waaye nag jigéen ñi Pape Ousmane bul fàtte ni jigéen ñi kenn ñaawul nag hmm? ku ci defaroo rek na ngay rafet am na ñoo xamante ne lu ñu defaroo defarul nag duñu rafet jigéen nag moom man gisuma gisuma jigéen ju ñaaw nag. ci dama jigéen ñi baal nag xam naa ne ñu may mere ci télé bi waaye wax dëgg yàlla rafet moom baax na ci àdduna bi de. Mm-hmm. <laughs> ndaxte ah, du xool muy plateau bi dafa rafet. yéen suñu image yi rafet. li jamono ku ñuy seetaan naan yéen seen télé ba seen image yi dafa rafet. waaw waaye tey bu image yi ñaawoon Mouhamed toog fee nekk ci réseau bi dañuy def image yu ñaaw kenn duñu seetaan son bi naqari kenn duñu seetaan lu neex daa baax. waaw lu neex lu rafet daa baax. lu rafet daa baax. waaw loolu loolu moom. kon nag baax moo tax aljana dafa rafet. aljana dafa waaye nag. Euh, rafetaay yi ñëpp bëgg aljana aljana daa neex de. ñoom defaru rek defaru. aljana daa neex leen defaru jigéen ñi dafa am ñoo xam ne Pape Ousmane dañoo rafet. waaye duñ defaru dañuy bàyyi seen bopp fàtte seen bopp. waxu ñuxur ñaxare. xool ko mi ngi nii nel def nel. waaye daa rafet. ji waaw bu defaru day rafet. waaw waaw ah, bil yaa ngi nii daa defaru. nel moo tax yaa yaa yaa yaa Adama Sow kontaan ci yow. dégg nga bil yaa moom lu ko def dafa gën a ñaaw ci séeréer yi. Ah, eh. te bu mësaan a toog fii day defaru. ban xadija day rafet xadija mel. xadija séeréer yi ma xam yëpp moo ci dàq. Hmm. xadija jonn bi xadija jonn benn. Hmm. yàlla na jàmmam yàgg. xadija dafa dafa dafa dafa photogénique. je l'aime bien celle-là. photogénique de elle est très bien vidéo nii rek naan eh, xale bi rafet naa. Ah. da ngeen ñëw gis ko nii nii ak bët naan i kii laa doon xoolal du moom. xarisa <laughs> Joon yàlla sa jàmm yaa gis ma séeréer bi. dama koy tooñ rek. ku baax la. en tout cas jigéen daal bu defaroo day rafet. waaw jigéen ak góor ñëpp ñu bokk. en tout cas Mia elle est très belle. loolu moom dama koy réitéré di ko waxaat. moom am na bët. Mia elle am na sakare yàlla. macha allah. ci lii ñu gis nii nag laa wax. nii nii image bi nii am na bët am na sakara yàlla xaw ma nag. Euh, xeetu xale yu mel ni ay Aïcha Rasoul ah genre xale yooyu genre yooyu nga xamante ba romb leen. sa xol sa xel day dal. danañ ñëw ah, ci Aïcha Rasoul ko. ah ay ah, xoolal ma moom nag neexul ma neexul te fii xoolal dafa xaw a laal tuuti rek de xoolal ma. Hmm. xoolal kolt yi. macha allah jigéen ñi di. luy koltu koltu. kooku kooku nante yi xam nañ fi may waxee moom moo xam na lu may wax moomoo Bilia noppi na en tout cas Mia yàlla jàmmam yàgg. fa ma ko terminer laa ko tee rek. di ko wax ni artiste la bu mag ku sàkk sa bopp da ngay rafet. man nag ci yàlla rek laa ko tënk rek. waaw loolu loolu moom dëgg la moom. yàlla moom dafa sës rek waaw yàlla yàlla dafa sës rek te jigéen ju mu fi wàccee ku nekk rek ñaan nañu yàlla mu am ku mu ko boole mu rafet. ak mu ñaaw. l'essentiel est que na xol bi xol bi muy say loolu daal la man amul lenn lu may wax. moom daal ah. yàlla ci alxuraan la. yaa ngi nii taaru ba dee. Euh, macha allah yow yaa gis sama taaru. yow ah, yaa gis ah, yàlla yàlla nee na maa maa bind ci mbindin bu rafet. wallaay ndeysaan yàlla dafa mën a bind de. bi taax na ahsani taqwiim. déedéet tàkku jinjeer jee tax yàlla dañoo bind bindin bu rafet. ndeysaan ndeysaan bindin boo xam ne amul sikk. moom la yàlla bindee doomu aadama moo tax doomu aadama mënul mënul ñaaw xam nga lan mooy ñaaw ci moom mooy comportement am jikkoom ni muy doxalee euh, ni muy mel yooyu rek mooy ñaaw ci doomi aadama mais doomi aadama nii nii nii ah Pape Ousmane doomu aadama daa rafet de yaa ngi seetlu loolu. dëgg la jëmm yeneen bi. dëgg la ngay gis doomu aadama jëmm yeneen bi. taxaw foofu boo fa ñëwee rek dañuy sës rek. ah foofu boo fa ñëwee dañuy yow kay waroo wax <laughs> lool foofu boo fa ñëwee ba dugg fa yow kay waroo wax ah, lool continuer rek continuer ne jigéen dañoo ñaaw rek axsani taqwim parce que foofu kenn mënatu fa wax dara ah déedéet mais taar moom dafa baax ci loo gis waaw waaw boobu moom beneen kii la beneen beneen pàcc la mais pàcc bi moom mooy yàlla daa mën a bind xiifal rek ñu wutal la ceeb bu jën bu neex defal la ko ci bool boo xamante daa am ay trou bënn fu nekk xoosu xoosu góos xoosu droit ni la lekkal dafa baax moo tax yàlla ne bu ngeen dee dem xam nga fi ngay gis ci ci ci ci jumaa yi ngay julli ji gaay sol ay ay kii ñan ñoo koy sol ay ñoom seen ñooy dem ci jumaa yi di julli ji sol ay jii yu xotte kook yu mel noonu te yàlla ne bu ngeen dee dem ci jumaa yi di leen sañse waaw ah, yàlla dafa bëgg rafet. ah mais loolu moom beneen beneen domaine la. Ah, rawatina mécanicien yi. Ah, rafet <laughs> mécanicien boo xamante ni day dem jumaa yóbbaale carton. waaw ndeysaan ñooñu moom si ay kii lañ quoi ñoom. seen liggéey la leen fekk. dañoo nekk ci dañoo nekk ci bu leen bu leen jomaa yi dañuy demee noonu. jomaay bu leen woon nañ dem pale fekkee nga nekk sa bërëbu liggéeykaay da nga bëgg mu sa tëni dem sangu dem julli ji boo paree nga delluwaat sol sa tëni bu leen jomaay waroon jox rendez-vous 14 heures dañuy yóbbaale yére ah du ñu yóbbu tëni ba dinañ yóbbu yére dem ba yenn heure yi ñu arrêté comme ki nekk fii moo la mën a jox loolu yow nga préparé wu solu ba rafet dem asuma yàlla suñu borom mécanicien yi menuisier yi ouvrier yi liggéey heure jumaa jot ñu wut ay carton nga xamante ni ñun yàlla moom lañ yaakaar ci lépp ñu wut carton ŋàbb ko sol tëni mu taq iwil man pa Ousmane ma sol sama jasineer bu weex ñëw toog nga ñëw dendeek man riisu ma taqal ma très sincèrement saa loolu loolu ñaanuñu ko nag ci jumaa yi te dañ ko fiy gis ci jumaa toog ak yow di gilli iwil nga toog ak moom di ngeen di gilli parce que da ngeen di dendee taqaloo nga sol jasineer bu weex soxna si génneel la ko muy grand mbubb ngay jóg muy jóg iwil ba dal ci mu taqal sa yére lan lay wax baal ma àq ñoo ngi jéggalu de ñoo ngi jéggalu Sénégal gis nga ñoo ngi jéggalu ba mu amee ba léegi la réew mi yàqu tarixa bu bees la du ko fontoo maa ngi jégalu tarixa boo dee menuisier nga wala maçon nga wala mécanicien nga àjjuma jot nga ni da ngay julli ji alhamdulilah mais bàyyil midi pile nga arrêté loo doon def nga summi sa tëni nga yóbbaale benn jàllaabe nga dem xëppoo ndox rafet xeeñ lu neex ngàbb sa sijaada bu set ñëw dugg ci jumaa ji toog kenn du lay identifier naan kii lii la soo paree nga demaat su meekuwaat solaat sa tëni mën nga continuer liggéey mais yenn yi ñàkk respecté doomu aadama yi la ñàkk respecté suñu borom la te boo waxee nag ñu ni déedéet ñun dañuy jaamu yàlla jaamu yàlla boobu Sénégal rek la am je fais ce te lii may def nii loolu laay def kenn mënu ci dara. ñun ñii di dem jumaa àjjuma bu nekk dañ koy mettitlu hmm. grande mosquée nag ñoo gën a dee. waa di foncé ñëppay génn kuy génn di foncé doo sol tëni doo doo doo sol yére bu set sa tëni ngay sol xoolal di foncé ni mu tol Petersen mécanicien yi fa ne dawalkatu tataay te tëni yi ñuy liggéeyee moom la ñuy sol lu leer laa lay wax li ma lay wax nii waa grande mosquée ñu bëree ngi ko fay jooy. ngir yàlla ouvre ya fa ne nekk ay mécanicien heure jumaa bu jotee nañu summi seen ay yére sol yére yu set dem julli ci jumaa ñëwaat solaat ci yére moom moo gën a kii tey jii nii Ousmane Sonko premier ministre bu la woon dama lay recevoir quatre heures boo maytul mi di ngay wàcc teel a dem kër ga sa jabar jox la yére bu set comme que buuru àdduna yii ñoo lay def loolu nga changé asumala ak buur bi ñu bind <coughs> muy lu am solo ci euh, pàcc boobu donc daal euh, dee leen defaru rek yéen jigéen ñi yéen góor ñi fonk leen seen bopp rek yàlla baax na